Tapera W d'école au Sénégal D'accord À école au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter Tape école au Sénégal Les leçons am yéen ay wéyal ak yéen cours yi xam ni moom lañ doon def ci waxtu yi seen mbokk Seydi Aïssa Gueye moo leen fi teewal tey ñu jàng saaru alquran bii di suratu fatxi nga xam ni mu ngi tàmbale ci baada audu billahi min alsheytaani rajim bismillahi rahmani rahim isa jaa nasrullahi walfatx wa raayta annaasa yadxuluuna fi diinillahi afwaajan fasabbix bihamdi rabbika wastaxfirhu innahu kaana tawaaba xam nga ni sar bi tàmbali won nañ ko ak yéen keroog insha euh cours yi nu passé yépp ñu ngi koy def ben ben daanaka li ci dess eh, bareetul ndax tay am nañ yene taxaw ci fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu fasabbih bihamdi rabbika lañu taxaw tay insha allah Ya pernah ne kero ko bok na ci lindon doon jéem ci wax ci wolof li nga xamni moy mana sar wi ci len ci ni ci mana tek waye non lañ ko topé won ak suwan biya non lañ ko topé won ak yeen ak waxtane yonent yi nga xamni sunu borom tabaraka wa taala tan na len yoni len ci nit ñi ka ca mag di bàyyi mbinde fi di maam sunu adama alayhi salam ka ci top di domam je sisa domi sisa ak siti sisa ñepp di siti yonti yalla adama alayhi salam mu waxtanon ci bindub adama li nu ci sunu borom tabaraka wa taala nettali ci alquran ak fu mu ko tegon ak fu mu jaar ak malaayika yi ba wax ak ñoom ba won leen ni aadama mi mbindeef daf koo neex mu bind ko def ko muy mbindeef waaye def ko muy nit mu teral ko teraanga joo xam ni nee na teral naa ko ci kaw yu bare bare bare wa laqad karamnaa bani aadama wa xamalnaahum fil barri wal baxri wa razaqnaahum min at-tayyibaat wa faddalnaahum ala kathirin mimman xalaqnaa tafdiila aadama moom nu waxtaanoon ci moom keroog bind gi nga xam ni borom bi tabaaraka wa bind na ko ba malaayika yi ba ñu sujjóot ci moom ba mu des menn mbindeef mu ñuy wax iblis laanatullaahi alayhi mu ni borom bi tabaraka wa taala santaane bii nga santaane ni kii de nañu sujjóot ci moom ndax malayka yi am na lu ñu doon wax ndax ña jiitu woon nit ci kaw suuf doon fi defi toj toje ki tojaange ba mu sàppi la yow borom bi nga jële leen fa bindaat nit ñi demay ni malayka yi dama bind koo xam ne dama koy teg ci kaw suuf mu toogal ma fa te nga jiitu ko fa te di ko fa mujj waaye am na daal koo bëgg a jox ndigalal toog ci kaw suuf malayka yi am lu ñu xalaat yemuñu ci ñu am lu ñu wax naa tajalu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qaal innani aalamu ma la taalamun ba malaayika yi ne ah dafa bëgg a tegati rekk ca kaw suuf ah borom bi day tegati bindati ni eh, am ku mu bindati yóbbu kaw suuf rekk du fa nekk dara lu may yàq man yu sudi fiya wayes fi kuddima dafa nekk di tuurante ay deret rek ku mel noonu rek la ñu yóbbooti ci kaw suuf borom bi ne leen xam naa lu ngeen xam waaye borom bi tabaaraka wa taala bind ga mu doon bind aadama ak lam ci bok na ci yam ci djublu won ba mu bidde ba nopi ba won len ni len ki nak kuma teral la te da ngeen di ñew yeen tam defal ko teraanga o leen bala mu jot lo ci mom am na laaj yu mu len jubale yu mu len djubale ay laaj ñu delo ko tontu ni ko nun dey xamnu dara lu dul xamal mu ne lan kon nag ki mom dama ko xamal Lima ko xamal xamaluma len ko limu xam-xamu leen ko bani wa allama adam al asmaa kullaha bima aradahum ala al malaika mu xamal aadama tur yi mu ko don xamal yépp lam ko bugona a jàngal mu jangal ko ko ba nopi nak daal di koy exposer malaika yi nak di len ndax yeen xam ngeen ndax xam ngeen li malaika yi de lo ko tontu la ni ko nak subhanaka yow di la ilma lana illa ma allamtana nun loonu xamalul xamul xamunu dara mu len kon nak mu jox adama ndigal ni ko kon nak liñu xam wax len ko adama jangal len lañu xamul won lepp te mom borom bi tabaaraku wa taala xamal ko ko bi len ko adama jangale ba nopi nak borom bi tabaaraku wa taala mom ndax jangal gi mo jitu sujud ga wala sujud ga mo jitu jangale me ndax ki jangale kat garaat bu bi mu am waras na ko cee sujjootal ci digalu yalla waye ki borom bi bind ba def ci mom limu mu def ci mom bam fess del mu tek ko yit man nañu am digalul sujud len ci ki defal len ki teranga ji ma len sant man yalla ci ngeen defal ko ko waaye teraanga jooju ka ko lank nak mom nga xam xeyna boba ñom ñeroon def sax dañu top ndigal ndax ma amaruhum waye faaluna ma yu'marun ndax booba kat bu fekke ni borom bi waxagulen di nek ci mom waxagulen ni kii xam-xam bima def ci mom nekul ci yeen waxagulen ni kii teranga ni ma def ci mom nekul ci yeen warna leena meuna jaaxal ba tax iblis mom taxaw nan ko diwee borom bi nan ko ah mm, ki de xam nga ni man duma ko sujootal ndax ki mako gën khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tayn yow ngi bind ci safara kii yang ku bindi ci ban bu nitu min hamain masnun jangon nan keroog min salsalin kal fakhari wa xalaxal janna min marijin min nar jàng nan keroog yi ci bindi gi borom bi tabarak wa taala bind adam alayhi salam iblis mi nga xamni mo taxaw jakarlo borom bi ni ko li nga santane duma ko def borom bi am na lu mu wax ak mom ne ko léegi dangaa bañ a sujjóot ci li nga xam mako bindal sama bopp santaanewu ma sax ñu def ko mako defal sama bop lolu ngay bañ a kok ngay bañal teranga ji mala sant ci mom yow de yi la dakk ci sama yermande dina la dakk ci sama yermande dina la génnee fi nga xamni fi nga nekkon moy garat maqama mi nga amoon di and ak malaika yi ne ci xitma bi ne ci liggey bi luma santane nga ne ca ba defee ni yaa ci raw ken rawatu la ci ba defee ni gën malaika yi ba defee ni gën ma bind ndax nak leg reuy reuy lu mo la ba doyatu la ngay wut ko gën doyatu la ngay joxe ay argument nan man dañ ma bind ci safara mom ñu bind ko ci ban loolu yëpp boole naa la ak sa garaat yooyu suruxal yow ko torox nga mas mu mën ma doxóoran jugal fii fépp abal ma mu taxaw ni ko ah, ba tey des na de man de li ma la jaamu fu ne jaamu naa la fa mu ne loo santaane def naa ko ba dem ba am garaatu génn jinne ya nga ma boole woon ji sama cosaan ma anda malaika yi di la liggéeyal gën leen a xej gën leen a nii gën leen a naa wax a wax a wax a wax léegi nag li ma leen doon jaamu yaa ne woon ku ma jaamu ma fay fay ma li ma def borom bi ni ko ah lool la yow man ngay tol tool moom la moom lépp loo def nga taxaw ni naa la fay aha aja yow buñ ku ñu dàq ci yërmande yàlla perte nga sa suruh na loo mosoon na def nyak nga ko lu baax loo mosoon na def perte nga ko ndax baatu genn ci lu yalla di nga xamni mom la la sante ci sujjootalal sama def mi yow ko perte nga ko ñàkk nga yow yaa ngi bokk minal khashirina legi nak mu ni ko damay ñaan legi man dama lay ñaan ma nek fi di dund di dund di dund di dund di dund ba ila yawmil baas ba bésu dekki ba waaw ku dem ba defee ni sam xel rëy na ba ngay jéem a wër xelum borom bi te borom bi moom walaa yuxiquna bi cheyin min ilmihi illa bi ma chaa wasia kursiyuhu samawati wal arda wala yauduhu xifdahuma wa huwa al aliyul azim kon kii ndax moom am ànd naa kom xelam déedéet dof piire ngi nii dof la waaye day dof bu baadoo la dof la waaye day dof bu réew dulu yépp li ko indi mooy rëy gis sa bopp ëppale sa bopp ñépp moo dal iblis ba mu jàkkaarloog borom bi tabaraka wa taala lu mu ko wax mu teg fa leneen dag may may kon ma nekk fi di dund ba bésu dekki bésu dekki xam nga bokkul ak bésu dee borom bi ni ko danañu la may daal ila yawmil waqtil danañu la may bàyyi la fi ngay dund ba dibbu ñu xam motax yowul yau ma'lum dafa bok ci bis yi nga xamni bis yu mag am mak yi la yi nga xamni borom bi tabarak wa ta'ala ila yawmil waqtul ma'lum dañ koy alquran ko wax kon xaaral ginaaw da nga bëgg xaar rek xaaral nga dess fi dinañu la ba nga dess fi ila yawmil waqtul ma'lum waye do ma wax waxtu wi nga fi bëgg joggé ni yawmul ba'th nga fi bëgg joggé wala yawmal qiyam nga fi bëgg joggé dedet yawmal qiyam bisu dekk la bu bisu de yow mal xiyaam jaam yi nga xamni ñoo doon def njub di defu yiw di def la leen borom bi santoon bés booba lañ leen di taxawal fay leen décorer leen yow mal xiyaam bés la bo xamni ne bésu la yow mu tarabuni waye waaye fayan tola jami yi nga xamni ne ñu won daw ñu doon def lu neex borom bi tabaraka wa taala ci lañu leen di taxawal delo leen jëf yi nga xamni yu safaan la tañu jëfoon ko te seen borom téré won leen ko jëf yaa nga fa toog di leen xaar ndax borom bi amul lu ñaaw lu mu yokkal kenn waaye ñi doon def lu yiw moom benn bu yiw bu ñu def mu def fukk yu yiw mbaa lu gën a bari fukk mbaa ay junni mbaa ay téeméer dina ko def ci aw yiw dooleel ni ko seen yiw ya waaye nag ki moyoon digalam awul ci santaaneem lu borom bi santaane mu aw feneen ba taxaw ni ko lii nga ma sant duma ko def ah mu ne ko kon nag may nga ma nekk fi ñu nekk fi aadama mii nga xam ne moom nga teral di sujjóot lu ci moom defal ko teraanga yi yépp nar ko dëkkal ci kër yu kawe yi léegi aadama mi moo tax nga toroxal ma ndax ma ne duma ko sujjóotal nga dàq ma ci sa yërmaande ma perte lu ma mosoon a def ak ni ma sonne woon ak lu ma doon li ma daj aadama mii de moo ki sëtam ku ma ci mën a yóbbaale sawara dinaa la yóbbaale safara nga safara soosu nga ma wutal safara soosu nga ne mom la yelo ndax dégguma ndigal dina topp ci adam ngir mu baña deg sa ndigal waye dina toog ci sa yoon wu jub wi nga xam moy siratul mustaqim gi nga ne mom nga redd te ku ci aw ku nek ëllëg nga fay ko aljanna fay ko lu melni teranga yi nga defal man nga di ma jëme safara man nak ci yoon yoon wu jub bi ci lay tok la yaqudanna siratakal mustaqim gis nga yoon yoon sa yoon wu bi ci lay xeppeerlu ci digg yoon wi lay toog dina len ñëwe droite ñëwe len gauche dina len ñëwe ginnaaw ñëwe len kanam fuñu bëgg a fuñu bëgg rëcc fep fuñu bëgg rëcc dina len ni nacc ni len nañ and safara ginnaaw seen mama tax ñu dakk ma ci yermande yalla ginnaaw adama tax ñu génnee ma ci yermande yalla génnee ma ci maqam ndax xañ ma ma amoon ma jëm safara කුමමන කච්චිඩෝම කිසටම් දිනාලෝ යපාරි pare boram bini ko ila ibadallahi minhum mukhlasin moom des nag jaam yàlla yi nga xamni ñom dañuy selal sen diggante ak borom jam yoy di selal sen diggante ak seen borom nga xamni leen borom bi sant duñ ci bolé dara dara dara dara dara dara limu leen téré duñ ci laal dara ñu ko ñooñu mëna lo leen dara sama jam yi yu yoy sama jaam yu baax yooyu nga xam ni ci man lañu ñu wéeru di sàkku ci boroom xaj bi mu musal leen ci xaj bi sama jaam yooyu mënaloo leen dara moo tax fu ñu toll ñu ngi saxoo auzu billahi min asheytaani rajim auzu bi kalimatillahi taamati min charri ma xalaq auzu bi kalimatillahi taamati kulliha allati la yujawisuhunna barun wala fajirun min charri ma xalaqa wa saraa wa baraa wala xawla wala quwata illa billah ni ko sama jaam yooyu mën a leen dara lu des yëkkati jataay bi fëggatu mu ne aadama uskun anta wa sawjukal janna léegi day yàgg sa soxna dama ne demal ngeen dëkk aljanna waaye xam ngeen ni diir bi may wax ak yéen lépp aadama day borom bi tabarak wa taala lagu ko won keur ndax lan wutalagu ko won soxna mo xam ñen fukki at yi lañu wax wala ñi en tout cas ñen fukk dal ñen fukki jamono dal hal ata ala al insan hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mashkura nit amon na jamono bo xam ne na 40 yo xam ne len lo loo lu ñu mën tudd la samp ko won kër waye adam alayhi salam bi ko sunu borom tabaraka wa taala bindee soxna moy hawa ci la ko nag ni uskun anta wa sawjuka aljanna dëkkal aljana yak sa soxna wa minha xaysu situmaa ragadan wala taqrabu hadhihi sajarah fatakuna min mina mu ne ko dëkk leen aljanna yak sa soxna uskun anta wa sawjuka aljanna nan len nan len biiru len fu len neex waye nak bu len jege garab gi waye nak lu jitu muy dugg si ci aljana ji borom bi tabaraka wa taala yef nako nak ni ko aljana ji fa nga wara dekk sa appartement parena saayka pare na sa ay njindi pare na sa ay pale pare na iblis mi day dégg mu wax mbolo mépp dégg nañu kon iblis lam wax ni ak ginne ak malaika jot nañu ci ñepp xam nañu ni dafa taxaw jakarlo borom bi di xata moom di bandiga mu ne ko inna haza aduun lak wali sawjika fala yuxrijannakuma min aljannati fatasqa mun ko gis nga iblis mi sa noon la yak sa soxna inna hadha ki du ko dem de negul bo mu dem dem mu di ko wax da ko ni ki tok de nga limu wax iblis mi de nga limu wax ndax neena la aqudanna siratakal mustaqim neena ci sama yoon wu jubbi lay xeppeerlu di bare ndey jor ak càmmoñ ginaaw ak kanam neena la droite gauche nee na la sa kanam ak sa ginnaaw foofu la leen di baare foofu la leen di xaar foofu la leen di bës waaye nag na nga xam ne sa noon la yaag sa soxla ndax li mu wax nëbbu la ko nëbbu ko mel ni mbindeef nëbbu ko man mi seen borom ni lu mu man ci lu bon dina la ko defee ak sa njaboot yowet nag loo man ci daw ko ak moytu ko nanga ko moytu te daw ko yaag sa njaboot ndax man ka nëbbu ma leen ci dara kii nee naa la kii sa noon la inna haza aduwun lak wala sawtika sa noon la yaag sa soxna kon fala yuxrijannakuma min aljanna fexe leen ba bu mu leen génnee aljanna fa tasqaa kon yow yaay sonn de bu leen génnee aljanna yow yaay sonn yow aadama yaay sonn yow miy góor su leen génnee aljana yaag sa soxna yow yaay sonn fa tasqaa fala yukhrijannakum min aljannati fatasqa lim wax de deg nga ko legi nak, lu mu am lu ne genné la aljanna moko ko gënal waye yow di gor len bo bu mu le bus bu ngeen sagane bo mu genné len aljanna yow yaay son aha aja borom bi ne rek ko nag uskun anta wa jukal janna mal nga dekk yak sa soxna dekk len aljanna wa kulla minha haythu si'tuma ragadan lekk len fa nan len fu lu len neex beru len fu len neex waye nak ah wala taqraba hazihi sajara garab du mom bu len ko jage iblis ni sorti na kon kay man sama affaire baax na ginnaaw xam li ñu len fi téré man lu ñu len fi téré dina len ko def lo ndax ñu genn fi ñoom itam ñak ay garat waye mom day ndeysaan jigu ko ndax mom ñak garat ga taxul ñu sonal aadama